Sango Gouma TV, Sango Gouma TV, Sango Gouma TV, la scène qui vous ressemble et vous rassemble. su fekkee abonné go cliquer bind bu xonq biñ bind s'abonner nii soo cliquer ba pare gis nga am na cloche bu génn ci côté bi nga cliquer tamit cloche bi soo ko cliquer gis nga ñetti cloche mooy génn nga cliquer ci kaw fiñ bind toutes les notifications comme nii soo ko defee abonné nga ci canal bi activer nga notification yi lan moo si des bala nga dem muy loxo bi jëm ci kaw def ok jëm ci kaw nga cliquer ko wane ni aimé nga vidéo bi te lii nag doo ci fay dara te dinañu jàppale ci liggéey bi ñi buura wax lii moo ko wax de nee na sëy bi du am man ne naqara ko tiis ak jaaxle ak ak gàcce rek laa feese fi ma toog bu soobee yàlla bu alxamesee insha allah danaa leen may jabar maye waaw birama yaa ngi gis demba Demba maa ngi koy gis kay. Demba de boko ko hmm. doto ko xamé lu war loolu eh, ale li dom la bëggon nag ndax dom sa domi bi géñam dëgg la Mamadou ya ko yar xamu kenn ku dul yow waye maas mi day ben suma sañu mu don ben bu gën fukk comme ni ma la koy waxe bis set kon lepp lo xam ne ñaa day taxal seen digënté suma sañu dama dox. fuma jaar ci tundu wi ñu may ko basante ko wokanté jar naa may de sey bi dal mom fo mun a dem dayan delusi. si man de sama bop la xam ku ñew ma ñew ku ñëwul ma ñew te lepp lu may wax ak yow day leer nañ duma tok ci tatu garab di wax wala ma bayyi ba beru ci mbolo di wax li may wax day leer nañ ndax ginnaaw yàlla yow laa yaakaar buur ndogal cey ku sama kàddu ma dégg ko samay nopp wala ma gis ko samay gët danaa tàqale boppam ak baata pexe di yàqoo ci am xel feeg boroom doful góor gi àdduna de su doonee làmbi xel walla xalaate kay bëri maas xel dafay xalab xaley gànjari nit góor gi xel moo tax xale bu naar not gileem bay xëccum nosam xele tax lu lislaam te ñu jëf ngir waaju ñàkk xel du amub yiw te du yilif këram maas loolu dey bu amee lépp am pexe maa bëgg sarax boo xam ne sarax bu mus a am saraxu doomu buur bu dee ca xare ma bëgg ngeen dem sama gerte gi di ko dalee ci gileem Sangoguma TV, Sangoguma TV, Sangoguma TV, la scène qui vous ressemble et vous rassemble.